dogal ba pare. Mhm. yaakaaruma am na keneen kuy jugee feneen di am lu leneen lu exactement yaakaaroo ni dina am li nga xam ne nag moom mooy ab euh, coppite ci élection présidentielle 2024 yi nañu desandi ànd ceeg kii di euh, Guy sa Sagna moom mu ni xamal ni prêt à mener la bataille pour euh, Bassirou Diomaye fay moom député Guy Marius Sagna dafa daal di afficher détermination sans faille ci li nga xam ne nag moom mooy approche bi mu am ci campagne électorale bi ñu daal di moom nag ci benn def Guy Marius Sagna ma ngi nuy euh, xamal ni dina doon assurance ci euh, candidat bi di a Bassirou Diomaye fay pour mu mën a gagner li nga xam ni moo di élection yi nuy daal di dëgmal moom mi ngi nuy xamal je suis et vous euh, êtes prêts euh, pour le, pour le démarrage de la campagne électorale ce dimanche 4 février 2024 pour élire euh, Diomaye cinquième président de la République di Sénégal le 25 février 2024 victoire des Patriotes dès le premier tour moom Guy Marius loolu la ñu jot xamala ci beneen fànn aussi moom Guy Marius mi ngi nuy xamal ni dafa fas yéene chaque euh, jour ci euh, euh, campagne bi di def benn vidéo bu toll ci juróomi juróomi minute muy daal di expliquer Sénégalais yi lu tax nu war a mën a votel kii di a Bassirou Diomaye Faye pour mu mën a gagner lu toll ci soixante-quinze pour cent au soir di vingt-cinq février deux mille vingt-quatre bi nuy daal di dëgmal moom mu nuy xamal ni même bu la fële ci RTS lépp loo xam ni promotion ñeel candidature Bassirou Diomaye Faye ak programme moom Guy Marius Sagna dina si amal taxaw bu mat sëkk tey jii Bassirou jàllul

képp ku bokk ci parti wala coalition. yi nga xam ne ñoo war a dem ci élection présidentielle yi. Uh-huh. aujourd'hui ce serait bien euh, d'autres yi nekk ci camp Benno Bokk Yaakaar mën ne am même taxawaay bi pour Amadou Ba. Uh-huh. pourquoi pas aujourd'hui que ce soit Mame Mbaye Niang mi nga xam ne mi ngi génn di dal ci kawam tous les jours. Euh, que ce soit euh, Pape Malick Ndour ak et tant d'autres Fofana. Uh-huh. ñu nekkoon ci wetu Macky Sall est-ce que ku ci nekk bu amoon taxawaay bii wax ne man sama candidat muy Amadou Ba dinaa fexe def lépp loo xamante ne nii. Euh, moom mooy euh, samay sama sama lépp lu moom mën dinaa ko def. Uh-huh. ngir euh, gën ko gën a wane li nga xam ne moom mooy programme moom wala gën a wax sénégalais li tax ñu war ko votel uh-huh. pour man aujourd'hui ci ci loolu la ñu waroon nekk. nii ngi nii Guy Marius Sagna di génne di wax ne dina campagne pour son candidat. Uh-huh. mais que les autres font la même chose et que c'est simple ñu dem ci élection présidentielle ki mën mu gagne. c'est simple mais actuellement du ci moment boo xamante ne nii maa ngi gis léegi waa pur. def nañ un communiqué ba tek directeur euh, programme euh, directeur. directeur campagne. voilà directeur campagne. ba tek adjoint yu directeur campagne bi c'est-à-dire ñooñu kenn du interroger wu si bëgg nañ dem wala bëgguñu dem élection. absolument Pastef bii nga xam ne ñu ngi annoncé ni que samedi bii Bassirou Diomaye Faye war na présenter programme am. wala mhm. war nañ ko présenter programme loolu du problème aujourd'hui y a le digital qui est là. ñoom xëy na mën nañu ko utiliser donte Bassirou Bassirou Diomaye Faye mi ngi nekk dans les liens de la détention uh-huh. kon tey jii jàpp naa loolu moo war a nekk taxawaay képp ko bëgg a dem ci élection mais du moment où euh, ñii ñu ngi préparé pour dem ci ab combat. nga uh-huh. ca des toog di xool ni ñu annuler combat ba. Uh-huh. pour man loolu est-ce que duñu mujjee annuler combat bi jël victoire bi exactement mais mais voilà si mbirum coalition boobu aussi ki nga xam ni moom moo di Pape Alé dafa am benn fànn boo xam ne génn na si et c'est très important moom muy lancer alerte di xamal lii di coalition Diomaye président euh, danoo war a déposer rapidement li nga xam ne mooy seen liste ñi leen représenté ci bureau de vote yi ndax euh, dafa am benn deadline boo xam ne dañ ko daal di fixé te buñ si daa di dépassé lii di autorité territoriale dañoo jot ay à que buñ dépassé deadline boobu. na leen wax ni euh, danoo daal di euh, dépasse li ñu mel amati li nga xam ni ñoom ñoo di ay mm-hmm. donc tey jii ñu dem élection présidentielle te ñi nga xam ne ñoo faree ci parti boobu amuñu li nga xam ne nag moom moo di euh, représentant ci ay bureau de vote loolu lan la mën a engendrer ci scrutin bi. bon waaw bien ñu ngi dinañ am bureau dinañ am ay représentants bien sûr. comme ni ñu ko daan gisee. parce que mais dafay alerté. waaye loolu mm-hmm. peut-être dafay que ce soit Pastef que ce soit coalition Diomaye président. Uh-huh. nekk nañ ci posture boo xamante ne réew moo xam ne dund nga fa dem ci DGE di laaj fiche de parrainage joxuñu la ko. ñu bañal la ko. nga dem di wut attestation CDC ñu ne la doo ko fi amee. exactement ci réew moom est-ce que di nga nelaw ba. lu jëm ci euh, déposer say liste représentant nga ciy xaar ba ay délai délai bu euh, délai délai délai di la ci fekk. ak uh-huh. problème yu mel noonu. Uh-huh. pour man. Euh, ñi nga xam ne ñoo seq la coalition Bassirou président. pour man dinañ am benn euh, dinañu dinañ am intelligence su xam ne ñi ñu jàkkaarloo kat ñoom dañu war am benn prudence boo xam ne. Euh, dinañu ko doxal lu jëm ci représent ci ay représentants pour man mbirum représentativité la rek. mooy amal nit ñu doy ñoo xam ne dinañ la nangoo siégel ci biir bureau de vote yi. et je pense que loolu. ñi nga xam ne ñoom ñooy waa coalition Diomaye président dinañ ci taxaw tout comme les autres que ce soit PUR Euh, yeneen candidat yu bokk ci élection présidentielle yi jàpp naa ne taxawaay boobu dinañ ko am te li ci war dinañ ko ci def. exactement lu war dinañ ko si daal di euh, def diggante président Macky Sall ak euh, Amadou Ba la ñuy daal di waxtaanee diggante boobu nag li fay xeeñ neexul dara bu nu sukkandikoo ci ki nga xam ni moom mooy Cheikhou Oumar si nekk conseiller spécial à la primature moom nag mi ngi nuy xamal ni la déclenchement de cette procédure en. commission d'enquête vient du palais moom euh, Cheikh Oumar Sy loolu lañu jot a xamal mu nuy jot a xamal ne aussi euh, sur les 20 maires qui l'ont parrainé 92 l'ont lâché kooku euh, Mame Mbaye Niang moo daal di xamal li nu mel ci candidature kii di Amadou Ba moom Amadou Ba aussi actuellement noo gis ne dafa daal di invisible lool ci côté ki nga xam ni moo di président de la République Cheikh Oumar dégg nga lu mu wax nee na commission d'enquête bi mi ngi dooree fële ca palais ba mu daal ñu daal di leer naam lii sax mos nañ ko fi waxtaanee 92 yi bàyyi nañu ki nga xam ne moo di Amadou Ba moom mu daal si toftal Amadou Ba actuellement kenn gisutu ko ci côté ki nga xam ne nag moo di président de la République lan nga yaakaar ni moo war indi benn division entre ki nga xam ne nag moo jiit mu xam ak premier ministre am déjà le problème pour man euh, dafa am problème bu interne au sein de Benno Bokk Yaakaar mhm. loolu nag ñoom problème boobu déjà dafa indi benn situation mooy déjà ñoom rek suñu dajaloo woon war a dem ci ay élection gën naa ne mën nañ ci am ay difficulté mhm. euh, rawatina ñu nekk ci contexte boo xamante ne ñoom bu ñu demee ci élection ci circonstances yi ñu demee boo xamante ne dañu dispersé wu benn euh, nga gis des candidats yu génn ci euh, langue gi nekk samp seen seen seen seen seen i candidature bokk mhm. que ce soit Boun Abdallah Dionne Aly Ngouille Ndiaye Mame Boye Diao mhm. ñu génn ci parti ci ci coalition Benno Bokk Yaakaar mhm. dem samp seen ay ndënd ñi li fa des waroon def benn bloc ngir jàkkaarloo ak euh, beneen euh, pôle bu opposition bi mu mel ni ñoom dañoo dispersé wu seen biir te loolu mhm. dafay indi benn faiblesse ci seen côté pour man loolu moom moo waral coow yi nga nekk di gis yëpp ñu bàyyi Amadou Ba fii dem di lijjanti nu ñu dugalee euh, Karim Wade liñ ci jublu du dugal Karim Wade mais dama jàpp ne liñ ci jublu mooy wut ay pexe yu reporter élection yi Euh, looloo looloo xew actuellement. Uh-huh. et ñoom li nekk problème ci seen biir xëy na comme on dit nguur guy jeex moo demee noonu. mais uh-huh. pour man mbir yi toll na foo xamante ne nii dignité ak honneur moo fi war a des. Uh-huh. mooy ñu fexe organiser élection yi ka nga jekk ko ka nga ñàkk koo jekk ko sa candidat et puis rien n'est encore perdu. suñu su suñu rafetee jot. na ñu def investir ci campagne bi li ñu ci war a investir on verra si dinañ génne wala. mais mais mais Amadou Ba di euh, wàcc si. tali bi di mbedd mi def li nga xam nag moo di campagne te neexawul ak nga xam moo di président comme nañu koy waxee à chaque fois est-ce que yaakaaroon ni loolu mën na koo porter préjudice ci campagne bi ñu daal demal c'est ça le problème le problème mooy na ne mhm. le candidat c'est-à-dire man bëgguma sax di accent sur le candidat alors que le président moom ci boppam actuellement mhm. suñ ko mayaatoon chance ne ko kay nekk candidat il aura ces mêmes problèmes là mhm. dans ce pays Macky Sall ci boppam li ñuy wër ni xam nga dañuy toog ni Amadou Ba dafa dem fee ñu sonkoriser ko. Mhm. mais président Macky Sall moom la njëkk a sonkoriser ba la ñoo sonkoriser Amadou Ba. Mhm. ak ah, fële CSA pourquoi ñu bëgg a jël lépp teg ko ci kaw Amadou Ba c'est-à-dire ñoom ils ci benn jeu comme quoi que ñun suñu candidat moom moo amul moom moo yëngu c'est vrai moom itam si jël responsabilité am des na ci taxawaay bi mu am des na. Mhm. mais pour man. problème yi muy am même président Macky Sall bu nekkoon candidat jamono ji les mêmes problèmes lay am. bon dinañu jéem a jël lépp nag ko ci kaw Amadou Ba def ko cuune jàpp ne moom mooy cuune moo tax mbir yi demee nii. mais le problème c' est pas Amadou Ba le problème la problème c' jàpp ne moom moo euh, jubootul ak les sénégalais. ci doxalin bi nga xam ne yàgg nañu ko gis ci euh, at yu jóge. ci lu bëri loo xam ne xew na ci biir mi aujourd'hui loolu la ne loolu la euh, donn xam nga mbir mi mbirum genre héritage la rek. c' à dire Macky Sall. la Amadou doon lépp nit ñi jàppal Macky la loolu la ñu loolu la ñu dóor ci ko Amadou rek loolu moo tax mu war a continuité quoi. Ah, waaw waaw continuité ak loolu. <laughs> nag euh, mi ngi noonu amaan loolu moo tax euh, diggante euh, ki nga xam ni moo di premier ministre ak président Macky Sall neexoowul bu baax a baax waaye Mame Mbaye Niang mi ngi daal dikk ak ñun dinu xamal lu toll ci 150 maires yu ko éliroon ci parrainage yi 92 yi nag jot nañ ko daal di wan ginnaaw loolu nag boo moytuwul dina coûter cher bu baax a baax kii di Amadou Ba. ci élection présidentielle 2024 yi ñu daal di dëgmal dañu koy daal di assemblée nationale les députés examinent un projet de loi contre le blanchiment de capitaux ce vendredi député yi nag tey da leen daal di woo fële ci assemblée bu 16h jotee nu war étudier projet de loi ñeela li nga xam ne nag moo di lutter contre le blanchiment de capitaux le financement du terrorisme et et la prolifération des armes de destruction massive ki nga xam Euh, Mamadou Ba nekk ministre des finances et des budgets euh, moom mooy défendre projet boobu moomoo ay fan rek ñoo des wala ay heure mhm. moo des nu ubbi euh, campagne électorale bi ci mhm. ay xibaar nu xamal nu tey jii bu 16 jotee député yi dina dem fële ci assemblée voter loi bi nga xam ni